salle yi loolu moo ci ëpp loolu nag maa ngi wax autorité yi yëpp ci kaw biir bi nii ci turu ansaar bi ci turu xalifa bi ci turu Cheikh Macky nii ne état bi loolu war na cee bàyyi xel parce que léegi gis naa loo xew loo xam ne vraiment du jur jàmm mooy fu mu neex rek nga jël sa audio tas sëriñ bu la neex saboté ko rek daal ko dugal ci affaire exemple may tuddee ni maa ngi gis benn waaye bu ñàkk fayda euh, dama yaakaar ne sax ci waawoon la wax ne fa la bokk mais yaakaaruma ne fa la bokk wala bu fa bokkee yi bokkee wu fa nañ na na na nga xam ne noonu la noonu la fa nopp yi bokkee parce que léegi saboté moom Alaaji Abdoulaye naan ba mu demee Fass kado bi ñu indiloon Alaaji Abdoulaye bi mu ñëwee daf ko wëree mu laaj ko Alaaji Malick Alaaji Ba mu mu ñëw ba agsi ci Alaaji Malick ne ko kado bi réer na ma mu ne Alaaji Malick dugal loxoom ci ron euh, kii bi tajaaj bi génne ne bii la mu ne ko Maodo mu ne loolu jëlee jëlee vraiment bi war naa jël ay que ëllëg bu Sénégal am problème mais parce que duñ am na benn euh, benn waaye dafa fi a des ci télé bi di waxtaan ci kan moo ko mag ci diine ak buñ ci mën ci doon xar waxuma ko pour ji mais dama bëgg vraiment loolu état moo ci war a jël ay mesures génne ci ay ay ay loi wane ne désormais pour ja conserver pour préserver jàng réew mi kenn ku nekk na wax ci boppam te tooy yi ak bàyyi saboté ak ak yabaate bi nga xam li muy jur ëllëg mooy nag suñu taalibe jub moo ñu tamit wala taalibe bu euh, jaboot ma walaay jub ne dafay togg wax lu bon lële kooku nga tontu ko loolu dëgg dëgg état bi war na jël benn mesure parce que jëm kër baaxul wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala